billahi mi ne seytaane rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sante yàlla sant sëriñ Touba sant xalifa général de Mouride sëñ Muntaxa ñu ñaan mu yàgg fi ci wér waaye ñoo ngi sant sëñ Basiru Anta Ñaŋ mi nga xam ne mooy borom Daaru Musti nga xam ne fii nga xam ne fi lay ne sëñ Touba moo ko jagale borom Daaru Musti kon sunu wax rek lu bari ndax dañuy dalal gan ñi rek wax leen sant leen waaye ñu war a wax ñi sëñ bi yoon yónni nga xam ne war a wax ci turam bu ñu waxee daañu wax li war a wax lépp kon li ñu wax rek mooy dalal gan yi tàmbalee ki ju monsieur le maire Abdoulaye Ka ñi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di fab su nuyoo nga tekk ci loxo ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp nuyul nu gërëm leen ci turu sëñ Mbacke Daba Sarr ñi nga xam ne ñoom nga àndal du délégation bi ñëpp ñu ngi fab su nuyoo ak suñ ngërëm tekk sa loxo nga tekk ci seen loxo du nuyoo rek préfet maar mi nga xam ne moom it ñëw na fii ak ñum àndal di nuyu kilifa yi nga xam ne ñëpp ñoo jógee ci village yi di sama mbokki chef de village yi waaye ñoom nag dama am lu ma wuute ak ñoom ndax ñoom chef de village lañu man chef di ndigal laa ñoom nag chef du village lañ ma man chef di ndigal laa bu ma chef du village kon maa ngi nuyu chef du village yi nga xam ne ñoo jóge ci gox yëpp seen wëllëre ak sëñ Mbacke Daba Sarr ak seen wëllëre ak monsieur le maire ñu ñëw fii tey ci woote bi nga xam ne sëñ Mbacke Daba Sarr woote na ko kon képp koo xam ne yaa ngi chef du village ak foo mën a jógee sëñ bi ne mi ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax baax ndax wëllëre bi ngeen fasante ak moom ak jàpp ngeen ko jàpp ñoom ñëpp xam na ko dama mënta lim chef du village waaye ku fi ñëw wax nañ ko ba ma dégg ko ci bu ma jotee ca sëñ ba danaa ko lim ñi nga xam ne ñoo fi ñëwoon di santi nag sama délégué de yi nga xam ne ñoo nekk ci Daaru Marnaan délégué de quartier bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ndax wax dëgg yàlla gis naa seen taxawaay gis naa ni nga xam ne it noonu ngeen fi nekkee ak ni ngeen fi jàppalee kon maa ngi leen di sant yeen délégué de gannaaw loolu it damay sant ñi nga xam ne nag bi sëñ Abdoulaye Ka ñëwee monsieur le maire ñëw ci sëriñ Mbacke waxtaan ak ñoom ñim fi yabaloon di sëñ Sidi mu sëñ Seexu naa ànd ak Mor ak Alla Ñang ak général jan ak ñi nga xam ne ñoom na àndal ñëpp sëñ Mbacke yebal leen fi man ñu waxtaan ni nga xam ne loolu la war a doxalee bés bi tey ñoom it ñu ngi leen di son ndax liñ war a wax wax nañ ko liñ war a def def nañ ko ci ak tey ci wax dëgg yàlla mat nañ liñ leen def kon maa ngi leen di sant sant gone yi nga xam ne ñoo jógee Daaru Marnaan mi euh, mat dem mi nga xam ne moo jiite xale yi Daaru Marnaan yëpp ànd ko ak Pape Ndiaye ak Abdourahmane ñu ñëw fii tey fekk si fi ñi nga xam ne ñoom lañ fekk fii ci saxaw gi di Basiiru Joxaane ak Baye Ndiaye bi nga mooy chef de quartier bi nga xam ne baayam Cheikh Ndiaye moo nekkoon chef de quartier fii bi mu fi jógee sëñ bi wax na ma danga ko fi sam ndax Cheikh Ndiaye dama bokk wëlëre woo xam ni mënuma koo fay kon nga fi def doomam ma def ko fi mu ñëw ànd ak ñoom ñoom ñëpp ñu ñëw fi ak ñoom ñëpp ñu ñëw fi fekk si bi ñi nga xam ne ñoom lañ fi ne ñi nga xam ne ñooy xale yi saxaw gi ak xale yi fettoo ak xale yi Sonatel 2 ñoo fekk fi jiiri bee mi nga xam ne moo fi ne Anda ak ñom ci liggey bi fi nak lima leen wax moy daru manal gën daru manal xalé yi ma ngi leen di wax na leen na ngeen bolo nek ben ndax li ñëpp man man ngeen ko bu xam-xam am ngeen ko bu yar am ngeen ko bu dee mooy na leen ba am ngeen fu ngeen mëna japp kon xalé daru marnan ma ngi leen di sant ci taxaway bi ngeen taxaway ci liggéey bi ngeen liggéey ak xale yu jigéen ñi nga xam ne ñoo fi ne di sant maam Bousso Diouf ñi nga xam ne moom moo jiite jigéen yi Darou naan yëpp ñëw fekk si jigéen yi saxaw gi ak jigéen yi fettoo ak jigéen yi Sonatel 2 di sant gi nga xam ne mënuma koo ñàkk wax ndax sama doom muy danga moom góor gi dem di chef du village sol bokk di sama doom di sama lépp danaa ko sant wax dëgg yàlla kon monsieur le sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di gërëm ci teraanga bii nga xam ne amoon nga foo ko mën a def waaye bokk nga bokk daaru manaan ak jox ju ko jox cër nga yëkkati teraanga ju mel nii def ko fi kon sëñ bi nee mi ngi lay sant di la gërëm ak njabootu sëñ Abdourahmane Mbacke gépp kon monsieur le maire da nga fee def ñaari teraanga ndax forage bee nga xam ne moo nekk Ferto te Ferto kenn ku ne xam na ne bi borom daaru musti ci Tuubaa dem ci géej gi mu dem jóge guy ngura ñëw sanc fii ñu nga dong yim àndaloon ferte googe leen yóbbu woon ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa lu ñu liggéey jox ko njabootu sëñ Tuubaa gi te loolu yow Abdoulaye Ka yaakaar naa ne am nga ci loo ci xam ndax sa baay wala sa maam guy ngoro lañ dëkkoon su fii mook sa baay ñoo àndoon ñi doon dimbale maam Thierno ci sanc bi ci la sa bokkoon kon xam nga loolu li ma la wax kon xam nga ne guy ngura fa la borom daaru musi jógee te guy ngura xam nga lim doon ci yow kon foofu laa yem ci loolu léegi nag dafa guddi waaye maa ngi la wax ne la fii ñu ko def jaadu na ndax bi sëñ Touba bu Touba fii la ko wute woon ba gis ko kon mi mandarga moo xam ne nii kenn mënu koo werante jumaa jii fi sëñ Mbàkke def mooy digg saxaw gi nga xam ne moom si nekkoon te xam naa fi dara fettoo gee nga xam ne doomi sëñ doomi sëñ Modou Mbacké sëñ Jéylé Mbacké moo fa ne ak njabootu sëñ Abdourahmane Diop nga buut fi def fa forage bu toll ni ba ñu fa def ci sa xalaat ak sa sa sa yéene kon boo ñëwee tey dafa lii il faut que ñu sant la gërëm la ci daraja sëñ Tuubaa daraja borom daaru maa ngi sant ñëpp damaa mënta wax nag waaye bu ma mënoon a wax danaa wax ndax fii am na lu ma fi fekkee am na lu ma fi gis am na lu ma fi dégg kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. kii Daaru Marnaan asalaamaaleykum mbokki waa Sexaw gi ak public bépp ñi fi ñëw teew fi ngir bis bu tedd bu màgg bii di siyaare sëriñ Muntaxa Mbàkke inu xaalim rasoolu sunu sëriñ sunu yaakaar tey ëllëg di siyaare sëriñ Mbàkke Daba Sarr inu Cheikh Abdourahmane inu Maam Thierno sunu yaakaar tey ëllëg di siyaare Baye Modou Diop Koppe chef du village di siyaare Baye a Mbaye ak Baye Mbaye magi Daaru Marnaan yi di siyaare Gana Bass Diagne Mor Lo Abdourahmane Diop di siyaare ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di siyaare Abdoulaye Ka sunu xarit sunu soppe ki bëgg Daaru Marnaan ki ko fonk ki fonk fii mooy capital bi muy Daaru Marnaan muy pàkk borom daaru bi ndax fii la lépp xewee fi lañ soxe bal yi fi la kër yi tàkkee fi lañ seede woon fii la lépp xewe te fii la lépp war a gaan bu soobee Serigne Touba daaru man nan kaw ca kanam fii la fii la lépp ñëw tiraanga ji yëpp fii la jëm si doole Seexu Xadim ndax kenn dafa dafa déggaloon Serigne Touba magam de moo tax fii la mburu mi xoyo moom waaye ndoo ko ba nga fii la mburu mi yëngutoo léegi nag ñi ngi ñi ngi siyaare ñëpp di wax Abdoulaye Kane sant nañ la looloo tax nga neex ma di sant daal maanaam képp sant ak sant bi xam ne ci maanaam ab laajte da ko yëkkati jox ko waa daal maanaam dama ne sant dama am hôpitalu daal maanaam public ci doole Cheikhul Khadim ñu war ko def ci pàcc bu tedd bii di pàcc bu Serigne Mbacke Daba Sarr di pàcc borom daaru xam nga ne ku xool bayaal bii nga xam ne wax dëgg yàlla sëñ Mbacke. ko fa ci tànkam rek la jaar ko xool li xam ne bi bi bàkkoo ko mën a yëkkati joxe ko sëñ Touba rek ko jaar te sëñ Touba rek a tax ñu def ko waaw ñun nag waa Daaru Naan gépp daal ñu ngi sant di gërëm di sant ñi ngi sant président Macky Sall di ko gërëm di ko sargal di ko tatagal ndax nag cooli cooli liw li ngelaw li ngelaw li moom ñu koy sant di ko gërëm ginnaaw bu nu sante yalla julli ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam di sante cheikh muhammadul muntaka bu baakha baax diko ñaanal sa borom yagal ka fi lol tam am wér noni lañ koy ñaanale Serigne Bassirou Anta mi khalifa Cheikh Ibrahima Faty sun borom yagal ka fi lol moom may ko wér di ñaanal nak borom pak bi nga xam ne coow moma muy serigne Mbàkke abdourahman ndax barab bu melni ku ko mën a téye ba nëgëni nga joxe ko ñu def ko centre de santé coow li coow li mooma kon ñi ngi sant sëñ Mbacke ak rakkam yi mu fi ci turu sëriñ Abo Mbacke moom sëñ Abdourahmane ak njabootu sëñ Abdourahmane bu ñu waxee loolu nag njabootu sëñ Modou Mbacke day dugg ci biir njabootu sëñ Mbacke dafa saar ji day dugg ci biir ndax sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Modou Mbacke mi ngi ci jataay bi moom it mi ngi ci biir nuyoo boobu sëñ Modou Mbacke moom sëñ Mbacke dafa saar moom it mi ci biir nuyoo bi ak ay rakkam yépp di siyaare sëriñ Mat Diop chef du village mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg dëkk bi ci loxoom moo ànd koog magi daaru manaan yëpp tey mel na ne jëf ji defin wi ñor na waa daaru manaan ndax mag ñii ma fi gis duñ jóg ci mukk ci ay jaaxal ku ci mel ni Baye Goro Mbaye mi nga xam ne maa ngi jàkkaarloo moom mooy jëw mi sëñ Mbakke Daba Sarr ànd ak Baye Mbaye Aram Baye na Sow Serigne Mbaye Diouf Serigne Abdou Gueye mboolem magi daaru manaan yi nga xam ne ñoo ànd ak chef du village bi sëriñ Kosa moom fii ci pàkk bii la dëkkee kon ñu ngi siyaare bokk yëpp di siyaare nag waa délégué de yi nga xam ne ñoo dëkke fii ci saxaw gi te Baye Ndiaye jiite leen ànd ak Serigne Adama Ndiaye ak sëriñ Djili Bey ak mboolem délégué de yi nga xam ne Serigne Modou Mbaye Ndiaye tuddoon na ko bu loolu jàllee ñu jël suñu nuyoo teg ko ci monsieur le maire Abdoul Ahad Ka ak mbooleem équipe municipal bi mu àndal yëpp kon bu ko defee jëf ji nga xam ne moo ñu fi dajale tey muy jëf du réy joo xam ne bàyyi ko ci commune bi jëm si Daaru Manaan mel na ni population Daaru Manaan bi yëpp soxla woon nañ ko ndax Daaru Manaan yaatu na yaatuwaay boo xamante ni ne naam am na centre de santé bu fi nekk waaye nag am na ay département yoo xam xamante bi ni ba tey amagu fa kon bu yàlla dogalee nga xam ne am na beneen centre de santé boo xamante bi ni am nañ ci yaakaar ne équipement yëpp lay àndal kon Daaru Manaan euh, euh, dana ci gën a kontaan nag bu baax a baax ndax fee centre ba nekk ak fii ñuy waxee tey lu mu gàtt gàtt mat na juróomi kilomètre kon ñi nga xam ne dañ daan dëkkee ci côté bii dem di fajoo ji fële kon bu ñu indee lii di tranga wax dëgg yàlla danañ leen noppal bu a baax a baax kon dal ñi ngi sant Serigne Mbacke Daba sar mi nga xamne mo joxe pàkk bi di santit monsieur le maire mi nga xamne di ne bi mu gañee procès bi ci Pakaseen xalam dajul fenn fu dul Daaru Manaan na xamne fi mu ma ko indi dal procès procès bi daru manan soxla won nañ ko ta yakamti won nañ ko li ñi koy ñaan nak moy nañ ko dal di tambali bu fasiyene ag àgg te naa ci yenen ak yenen ndax xamnañ ne centre bi ak digganteem ak centre bee ñu nekk am nañ yaakaar ne na bu paré momitam dana fi naan ab tali bo xamanteni bi ne dem way dana gëna yombu kon monsieur le maire jëf ji nga def ñu ko de rëy na lool ci ñun ni ñu koy naw nag waaye nag boo ko àggalee jàmmit na nga ñu naalal ay tëli loolu moom Daaru man manqué na ko lool nag ñu ngi la koy dagaan nag bu baax a baax a baax ci turu chef du village bi ak ci turu waa Daaru Manaan gépp comme dafa guddi ñu njëkkantee temps bi foofu lañ koy yemale wasalaamaaleykum wa rahmatullah